fukki weer ak juróom-ñett ba jëm ci fukki weer ak ñett bu ñu jàpp ne mënagun nañ fi am vaccin boo xam ne dina tax feebar bi kuñ ko pikiir du la mën a tee dal loolu nag bu amee day am contexte bu bees boo xam ne day ñëw présenté wu contexte boobu mooy lan mooy que ne ñun askanu Sénégal nañu jiima jàng dund ak lii nga xam ne mooy feebar bi mbas mii daal te bàyyiwul benn réew ci àdduna bi joxewul pour que kenn ku ci nekk toog sa kër croiser say bras bañ a liggéeyati nañu ma jóg dem liggéeyi ñi war a jàngi jóg gii ma dem jàngi mais aussi nag ñu boole ko ak respecte li nga xam ne mooy les mesures barrières ci biir loolu la ministère de l'école le ministère de l'enseignement supérieur ak le ministère aussi de l'éducation nationale jàpp ne ci njàng mi nga xam ne ni njàng mu suufe mi la di éducation nationale dinañ tijjiwaat école yi pour bépp élève boo xam ne nii danga nga toll ci war a defi examen mu mi nga xam ne war nañu def bac muy ñi nga xam ne war nañu def BFEM ak ñeneen ñi nga xam ne war nañu def ay affaire qualification ñu ne vingt cinq juin bii dinañ tijjiwaat école yi pour que ñoom ñu mën ci delluwaat progressivement di jàng. waaye nag bu ñu réere mbir que lu bees dina am fi ñu jëm nii dina metti ndax seetlu nañ ne ci at mi ñu nekk croissance économique bu Sénégal dina jóge ci lu toll ak juróom-benn. virgule six virgule cinq chiffre ñëw ba ci li nga xam ne nii mooy trois loolu nag bu amee mooy que ni économie bii nga xam ne nii moom moo fi am dina nërmeelu économie bu nërmeeloo li muy laajaat moo ñu jógaat takk sér yi takk tuba yi askan wi Sénégal kenn ku ci nekk ak secteur ba nga féete nga jàpp ne war nga jóg xeexaat war nga joxewaat li nga xam ne yëpp am nga ko pour que réew mi mën a nekk teguwaat ci yoon. benn pays bi nga xam ne ci monde bi yëpp moom rek moom moo ci yëkkati lu toll ak fukki milliards ak ñaar jagleel ko ay ndawam ñi nga xam ne dañu nekk bitim réew. loolu nag di loo xam ne lu am solo la parce que ñaare li ñuy gis. ku dem bitim réew dañu naa am na xaalis le président de la république xam situation nga xam situation yi nga xam ne ñu ngi koy dund foofu yëkkati lu toll ak fukki milliards ak ñaar jagleen leen ko ngir dimbal leen mooy aussi ngir ñoom ñu mën ci dimbal seen i njaboot yemul ci loolu le président de la république xam ne am na ñoo xam ne génnoon nañ Sénégal demoon bitim réew mbaa am na ñu ñëwoon fii pour ay yeneen question mais mbas mi ñëw téye leen fi bu mënuñu delluwaat ci seen béréb bu liggéey ñeneen ñi bëgg a ñibbi ci seen njaboot te mënuñu ko le président organiser ay vol yoo xam ne nii dina man di jël ñooñu ak di leen yóbbu pour que kenn ku ci nekk fa nga bëgg dem pour jegeñ sa njaboot nga mën koo am